bismillahi rahmani mbokki julit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu école franco arabe man baul ulum njiitul sëriñ alxaaji njaay seex ndindi sëriñu daara ak mboolem ñama àndal te liggéey ba ñëpp di école bu nekk fii ci Touba Mbakke ngir tàggat ndaw ñi mokkal alquran wala ñu miin ko defal leen formation ba lépp lu ñu war na jàng ci juróom benn at ñu àggale ko ci ñetti at mën a am certificat bu bàyyi ko ci état bi boole ko ak sàmmal leen seen alquran ak njàngum majalis yarum murit jàngal leen xasiida boole ci tàggat yaram lu mel ni karaté ba ñu man cee amee ay diplôme ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp siyaare ñëpp massawu ñëpp ci tolluwaayu jamono ñooy sant yàlla bu baax ci résultat yi mu leen may ci at yi weesu di sant mbooleem waajuri donga yi leen doyloo ba andi fa seeni doom ak mbooleem personnel ba ginnaaw loolu nag ñuy xamal mbooleem waajuri donga yi ni inscription bi door na njàng mi dinañ ko door ñaari fan ci weeru septembre dañu koo limité ba tax ne képp koo xamee ni sa doom ma ngi doon jàng ci man baal ulum wala nga bëgg faa andi sa doom man baal ulum nekk ci Touba Ndaamaatu yoonu njuru ñaari Baye Fall première arrêt man ngaa dal di jokkoo ak ñoom ci 77 424 19 12 wala 77 682 54 34 wala 76 683 54 34 ñoo ngi séentu ñëpp place yi dañu ko limité école bi nag ña fay dugg mooy ñi mokkal alquran wala ñi miin alquranul karim ñoo ngi sant ñëpp tey séentu ñëpp wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu